ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ak Yewwi ñoo xëy yanu yéenekaay tey ubbi L'Observateur démb ba leader yi Askan Wi doon conférence de presse Déthié Fall mandataire national bu Yewwi Askan Wi dellu sana ca ndajama ci convoqué gi ñu leen convoqué woon ca direction générale des élections ak la fa jëlee Déthié Fall nee ba ñu demee dañu leen wan bulletin yi waaye Yewwi Askan Wi war demee ci élection législative yi waaye bi ñu xoolee bulletin yi gisuñu ci benn photo te Ndiaye tontu moo di nekkuma fi ngir di interpréter loi bi li ñu arrêté bi sant loolee rek la ñu def Déthié Fall ne ci ne ko kon xel xalaatul ñu naan ñoo ngi viser bon à tirer bi Djibril Gning di expert électoral directeur unité assistance électorale bu GRADEC di leeral ci biir l'observateur ne ñoom waa yeewi askan yi bu ñu visé wul bon bi ñu leen jox signé ko seeni liste du nekk ci biir bureau de vote yi ca bésub élection ya BAT di bon à bu yeewi askan wi le quotidien bulletin à traiter la ko tuddee ba dañuy wax ne lañ ca deful photo Ousmane Sonko moo tax waa yeewi nee nañu duñu ko laal Vox Populi xëy laal ci coow li balal wax ji ci xëtamu njëkk nee nañu ñoom waa yeewi askan wi spécimen bu seen bulletin bi ñu war a demee ci élection législative yi photo Ousmane Sonko mi tête de liste nationale nekku ca Déthié Fall nañu bu yi bokk ci législative ay élection du am ci réew mi ñoom waa yeewit seen manifestation gi ñu woote ajjuma fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin ca place de la nation di place obélisque fii ci Ndakaaru ak ci Sigicoor nee nañu seen manifestation yooyee dañu koy def Walf Quotidien di ko dëggal ci xëtamu njëkk ba di ñu wax ne waa yeewi fu dëgër la ñu taxaw ndigalal gouverneur bu Ndakaaru bii tere lépp ci période pré campagne bi ñu nekk waaye yeewi nee nañu loolee muntatee ñu amal seeni manifestation préfet bi jox leen autorisation ak mu tëye autorisation bi la ñu yemale journal Les bind ne waaye yeewi askan wi tey la ñu a dogu ci def seen manifestation yi àjjuma ji di ñëw avec ou sans autorisation waaye yeewi askan wi li bëgg moo di forcer barrage bi ñu teg ci seen kanam journal L'Info moo ko bind ci xëtamu njëkk Sud Quotidien ne la ñu moom ak tiitaange waa Benno Bokk Yaakaar taxaw ci seen kanam ne duñ leen ca bàyyi journal La Tribune mel ne ko naan ñu dafa neexut a dégg rek waaye defante bu ànd ak risque yu rëy ci la ñu jëm ndax opposition beeg pouvoir bi ku ci nekk ci ñoom yaa ngi fëgg sa dënn di wane ne moom la réew mi quotidien nañu foofee nag fa la réew mi toll waaye yeewi askan wi nee nañu gisuñu lu leen di tere def seen manifestation yi àjjuma jii di ñëw waa Benno Bokk Yaakaar ne duñ leen lu gaañi bax ko sursoi xamal ñu ne waa Benno pare nañu ngir jàmmarlo ak yeewi ñàkkante ko ak ñoom ñoom waa Benno Bokk Yaakaar ak waa yeewi askan wi enquête yi ne kay nee nañu ci nappante ci kaw kàddu ca la ñu nekk guerre des mots le vrai journal di ko dëggal ci xëtamu njëkk Vox Populi nañu jeunes yu benn bokk yaakaar daas nañu seeni sel ba mu ñëw toog di xaar bésub màttante bi muy Yankhoba Diattara di Moussa Sow ak ñi ñu àndal takku nañu ba dëgër taxaw ci jàmmaarlak Ousmane Sonko compagnie ñoom ndaw yi mouvance présidentielle bi ñu jigéen ñi journal La Tribune nee nañu ñoo ngay wane seen bopp ca Bambey ubbil yéenekaay bi jeunesse doon amal am xam ne lañ ca doon waxtaane moo di li war a doon ñu dëdmal Ndeye ak ñi mu àndal wane fa seen doole ci mobilisation bu rëy wax faj seen yéene ci wotey législatif yi mu di fexe ba ko ak lu toll ci ndajale moom it journal bi nee nañu responsable yi Bokk Yaakaar yu bari ya ca diiwaan ba teewoon nañu ca ñu ci mel ne ministre conseiller Mor Ngom borom Bambey Ousmane Ndiaye Babacar Ndiaye Ibrahima Khalil Fall ak présidente Fatou Sène ñu seen ci xët njëkku libération xibaar bu yéeme Omar Ndaw kaso li ko waral moo di dañu ko joxoon 148 millions 348 mille ngir mu tabax ab gendarmerie ca Koungheul Omar Ndaw jël xaalis ba tëdd ca fukki fan ak juróom ci weeru février mu di 15 février 2018 ci la chantier yi waroon a pare ba mu joxe ko waaye ba léegi travaux pareegul da ko commencé yeggalewu ko bi ñu ko waxee dane coronavirus bi fi jaaroon